ngir ñoŋal waaye it seetantal garage mécanicien yi nekk fii ci Sénégal loolu nag moo nekkoon objectif bu regroupement des vrais artisans de l'automobile yi nekk fii ci Sénégal ñu gën koo xam ci REVAS ñoom nag ñoom ñoo daal di initier ab opération de nettoiement mi nga xamante ne ñu bëri ci acteurs yi fekkee nañ ko foofe ci West Foire. mécanicien garage mécanicien yi yëpp war nañ bokk ci li nga xam ne nii mooy setal environnement bi te loolu bokk na ci sunu projet bokk na sunu projet yi nga xam ne nii taxawal nañ ko mooy gën a fonk environnement bi te ñu am lu ñuy faral di ji ñu ne liy tax lépp presque mécanicien ñoo koy taqal te ñu envisager ñun mel neneen Euh, transformé waat suñu secteur ba secteur bi nuru nuru li ñëpp mel li ñëpp bëgg muy mu nekk secteur bu set. gannaaw ñoŋal garage mécanicien yi de waaye it faw rek ñu xalaat nan la ñuy def ngir ñu mën a rafetal image garage yooyu le ba kenn ku nekk mën see gis boppam. ndax suñ ko defee dana tax ñu gën a am client dana tax ñu gën ñoo respecté dana tax tam nekkit bi gën a rafet dana tax liggéey bi gën a gën a gën a gën a dox dana tax tam ñu gën a sàmm tam environnement bi. ci wàllum formation bi ak it emploi des jeunes artisans Revas nag di tàllal loxo autorités yi nekk fii ci Sénégal. waaw comme ñu ngi jël xale yi xale yi boo leen xasee ba jël rek xale yi dafa war a am nu ñu war a mel ndax xale yi ñooy avenir ëllëg. te jamono ji ñu toll léegi oto yi gis nga ni mel oto yi dafa dañ ko dafa oto yi léegi dafa dafa dafa liggéey bi dafa développé léegi nouvelle technologie la ñuy la wax kon état da si war a jàpp bu baax baax jàpp ci formation jàpp ci accompagnement ànd ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci métier bi ànd ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci métier bi ñu ànd ak ñoom gunge xale yi ci formation gunge xale yi ci ci accompagner leen opération de nettoiement biile tax na ba ñu bëri ci acteurs yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu automobile daal di joxe seeni contribution ngir rekk ñu mën a rafetal garage mécanicien yi